ñoo ko sonal ñoo sonal le président Macky Sall doo ci woo kenn ba mu jël téléphone. non c'est pas sérieux aussi mais nañu wax troisième mandat opposition bi nee nañu il faut que président ci lu gaaw génn wax ne moom du nekk marque candidat xam nga yooyu en 2023 xam nga loolu mooy bëgg indi rek ay ay xam nga bëgg a euh, xeexu robine loolu ak xeexu marché taxaw xeer wa romb di sànni ñoom du ñoom ñooy wax loo Macky Sall ñooy jox imposer Macky lu mu war a wax ak lu mu warul wax c'est pas à eux Macky Sall ko fal pour pour euh, le mandat là pour mu liggéey li mu ko fal pour mu liggéey ko ci loolu la nekk nekkul pour di subir ay pression wala ay attaque wala ay chantage ñoom ñooy kan bay taxaw di wax Macky Sall nanu wax lii tey wala nanu ko wax fii ak suba wala ginnaaw suba. ñooy opposition waaw ñooy opposition ban opposition ñooy yàqkat yi wéy. <laughs> opposition il faut il faut s'opposer légalement il faut s'opposer dignement et loolu la ñu wax ci opposition mais opposition boo xam ne pour taxaw pour taal réew mi opposition boo xam ne taxaw pour yàq réew mi pour rey ay doomu jàmbur loolu mooy opposition pour sa intérêt bopp yow ëllëg ci xamul nooy meli ëllëg loolu mooy opposition non mais opposition bi yow kenn nag monsieur Mbengue ñi doon tiré ci pouvoir bi lañ nekk quand même. nga ni. ñi doon tiré ci xale yi ci pouvoir bi lañ nekk c'est pas vrai c'est pas yow li ngay wax yow yow li ngay wax da la war a jël. non non mais yow da la war a convoqué suba non. yaa kenn du ma convoqué. non non non pardon si monsieur Mbengue yow xam nga ne. police ci armée bi la nekk. non non c'est pas vrai gendarmerie ci armée bi la ci état bi la nekk. mais loolu loolu leer na quand même mais même inciter. inciter une armée ou une ou inciter une police ou une gendarmerie. non may ma may ma pardon may ma inciter des gens que ñu tiré sax que leen incité moo tiré incité des gens parce que légitimité défense dafa am su ñu ñëwee bëgg yàq réew mi bëgg a taal bëgg def yoo xam ne du n'importe quoi que leen incité kooku mooy responsable. kan moo leen incité. xaw ma kan yow même yow su fekkee ne yaa leen incité yow yaay responsable mais c'est que tey danga bëgg tey armée bi daal taxaw gendarmerie taxaw ñëpp taxaw ñu ni def leen lu leen neex kon lu ñuy doyati armée lu ñuy doyati force de l'ordre ku mu neex daal neex def. mais c'est pas il faut qu'on soit plus sérieux il faut qu'on soit plus sérieux dañu bëgg daal ñu bàyyi armée bi ñun ñu amee une armée responsable une police responsable une gendarmerie responsable tey ñoom suñu yoon kenn du gaañu mais nag sunu incité ay nit incité ay ñoo xam ne tey dem di toj ay magasin jaambur di toj ay këru jaamur di lakk ay yëfu jaambur di poussé sax di ñoom capable nañu sax rey nit ba pare pour rek affaire bi danse capable nañu fomenter ay mort rey ci seen biir sax ay nit ñoo xam ne xëy na jariñu leen dara. mais opposition oui. rey ci ay nit rek pour ñu ni ay nit dee nañu pour yàq deru Sénégal li ngay wax ni garaaw na de am mais capable nañ ko pour pour pour rey ay nit pour yàq deru Sénégal pour au niveau plan international ñu toppoo manifestation yi amoon fule dix personnes dee nañu cinq personnes dee nañu te fekk xëy na sax ñoom ñoo leen rey ci seen biir parce que kenn du xam ku rey te ku dee ñu ni ñu ñu ni voilà armée bi la force de l'ordre yi la am na pourtant ay force de yu nu xaañ am na force de l'ordre yu taal am na kenn du ko wax mais ñi leen incité ñi fi indi histoire yi ñoo ñu leen war a wax dëgg su jotee rek nan ko waxante mais bu nu bàyyi euh, ba coow am ku nekk yi tëb di wax ay ay espèce politicien yu raté jóg di topp ci di wax ay ñoo xam ni dépa kenn waxatul woon seen i wax seen i parti kenn waxatu ko woon ñëw bëgg a euh, ay espèce u sëriñ ñëw bëgg a bëgg bokk ci sëriñ su mag ki sol seen grand mbubb yu rëy ñëw taxaw bëgg a nekk bëgg a di wut buzz pour ñu ni kii mooy sëriñu diw mooy nangam nangam tel tel tel yooyu mënul tula ndax sénégalais yi